ci boobu mais Modou Modou moo xam ne grand zal itam dama bëgg a dugg seeni forme waaw forme yoo allez-y nga ne ma après dinañ ci waxtaan waaw ñëwal ñëwal tey parce que gis nga shooting yi waaw boo xoolee seeni forme mm-hmm. si te boo xoolee li mu kontaakul moment boobu noonu bareewul li mu kontaakul li mu kontaakul li mu kontaak bareegul li mu contact bareegul ah ci shooting yi nga gis yow li la sa bi may si te li mu contact bareegul li ma la wax nii bu suuru làmba du gis hmm. nga Siteu ngi yow waaw bu suuru làmbajaa jaa na nga xool Siteu hmm? su contacté yenn dese yi ci yaram bi yëpp dina dañ su contacté poids bi nga ko gisal nii dina xaw a wàññeeku su contacté su daa contact ci diggante bi waaw li des ci combat bi nii su ci contacté ah. contact normal normal waaw ya dese yu bari nekk ci yaram bi dina dañ di nga gis beneen forme bu bokkul ak forme yu nga gis ci bi moo ndi ci bi waaw kon forme ci sutu gi su la ko déggee ay forme na xaté la wala ay forme tekkal non non non du forme tek xel dafa demone def musculation yok poids am touti mais lolu boko ko ba paré nak da nga wara def contact bu baax nga xamné poids bi buy wacc du wacc lu baré noonu quoi di nga déssé poids mais yena déssé yi nek sa yaram yépp dina lañ quoi day dañ day dañ waaw ok mais nga physique def def contact physique def contact physique de contact waaw su ko defee yenn déchets yi nekk ci yaram bi te baaxul yëpp day dañ su ko defee nag poids bi lépp mënul dem poids bi dina des tuuti mais dina gis dinga nga gisaat forme parce que boo xoolee Siteu mosul am biir ci làmb parce que Siteu bi du gis nga biir bi ni mu xaw a. Ah, xaw na génn. ah mu ngi noonu. gis da nga gis nga ab abdominaux yi mu tracé mais boo xoolee ci côté yi nii. Mhm. da ngay gis loolu mos Siteu mosu ko am. baax ko am te gis nga ko ci Siteu ngi fii nii. léegi nag bu contacté nii. physique contact physique mm-hmm. contact parce que mm-hmm. combat bi shooting bi mu paree léegi war def deux mois de kii. Mhm. bu matul deux mois tamit. parce shooting bi day waaw léegi léegi mu léegi mu war a ci ay un mois et quelques yooyu lay. voilà ci shooting bi waaw suñu ko ràngee mu contact ràng ràng ràng ko mu contact contact contact. Mhm. Babacar Siteu bu ñëwee làmb ji nga gis beneen Siteu bu bokkul ak bi nga gis. parce que seen fes fes bi rek après def shooting bi bu dee bu dee Modou moom bu dee Modou Lo nag bu dee Modou Lo nag xam nga Modou Modou Lo génn Sénégal de. waaw demul fenn demul muy pare combat Franc di pare combat. waaw donc ñu ngi entraîné mu ngi def musculation te mu Modou Modou ba nga gisoon ci Ama Balde Modou ba nga gisoon ci na tuuti tamit. poids mais am na sens di contact ak Franc yi ak ñooñu noonu. ak xale ñoom. ak xale yeeg ñooñu waaw. parce que mu ngi doon contact bu dee nekkul ne jour la doon contact des fois mu. cof contact mu yee yaramam daal gis ne Modou moo gënoon forme bi moo gënoon. mo gënoon bax quoi. forme Modou mo gëna bax yow. ci ci li nga gis ci moment bobu noonu. waaw ci moment bi ñi def shooting bi. bi ñuy def shooting bi. waaw Modou mo gëna bo xolé sen kanam yi rek da ngay gis loolu ah bo xolé kanam yi rek di nga sey sa wa dalen ko ak ti ngeen di di de du ngeen ak ti ngeen di seetaan fi lu ciow li bari bari bari bari ak lu buru bi bari bari bari xam-xam ngeen fi digge parce que ki wax ngeen koy deglu diko moo tax Saliou Lo la tudd ngeen xam ko daale na mbër nu ne bëree na nu ne te mësuñu koo gis ak poids bu rëy moo tax bruit bu bëri bi doo ko ci dégg waaye bés bu xam-xam jotee déglu ko grâce al continuel